tabax aljana aljana joo xam ne soo boolee suuf ak asamaan ak seen yaatuwaay aljana leen gën a yaatu te aljana ña fay dugg mooy ña am njéggalal yàlla ba pare yàlla ne kon nag yéen nit ñi daw leen njëkkante wuti sama yërmande daw leen ngeen njëkkante ji sama yërmande moo tax benn boroom xam-xam daf ni kum doon ci ñun nit ñi suufi yàlla si yaa ngi def yitte pour am ci kër kum doon yaa ngi def yitte góorgóorlu ba am kër goo dëkke ci suuf si te boo comparé suuf si ak aljana danga naan suuf yaatuwul kon nag est-ce que nit war na def yitte pour am kër fii ci suuf te du def yitte ngir am kër ca aljana moo tax doye ji doye ji doye ji weesuwul ajjana joo xam ne moo gën a yaatu suuf ak asamaan doye di weesuwul nga am kër ci suuf ñàkk fayda ba amoo pentraité aljana kon nag wa saariu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard yàlla nee na maa ngi ko préparal ñi ragal yàlla ñi mooy ñan allazina yunfiquuna fi sarraai wa darraai mooy ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko dépenser ci yoonu yàlla est-ce que ñooñu kese la wal kaazimina al ñi nga xam ne buñ meree boo xoolee seen kanam doo ko xam waaw nit fekk àggagul foofu nekkagul sang nit fekk mi ngi mer ngay xool kanamam xam ne kii dafa mer kooko pareegul pour nekk sang waaw nit ki pour mu nekk sang li ko naqari ci kanamam boo ko xoolee doo ko xam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidatna Aïcha daan na ko mere mais ni yonent bi xamee ne sayyidatna Aïcha da koo mere du ci kanamam mais ci ay kàddoom xam naa jigéen ñi war nañu jàng loolu yonent bi dafa toog benn bis ne sayyidatna Aïcha yow soo ma meree dinaa ko xam waaw soo ma meree dinaa ko xam sayyidatna Aïcha ne ko noo koy xame yonent bi ne soo ma meree soo dee waat doo tudd sama tur danga naan maa ngi giiñ ci yàlla mi bind Ibrahima waaye soo ma merewul nag danga naan maa ngi giiñ ci yàlla mi bind yow Muhammad